Salut, ça va Oui, ça va bien et Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement Je m'appelle Junior Bokoli, Congo, RDC, Sénégalais en même temps. T'as deux nationalités Sérieusement Oui, oui. Toi, tu parles combien de langues euh, euh, Le Lingala et le Wolof. Ah, le Lingala du Congo, le Wolof du Sénégal. Tu maîtrises quelle langue euh, le mieux Le Lingala. Tu te sens plus congolais ou sénégalais je me sens plus congolais que sénégalais en fait. Moi je suis congolais, je suis batteur, donc c'est normal. Je suis musicien on peut dire. T'as grandi dans quel pays J'ai grandi sur Sénégal, je connais un peu le Wolof, je maîtrise. C'est laquelle la langue la plus difficile pour toi, le Wolof ou le Lingala le Wolof. Je n'ai pas hésité, le Wolof c'est la langue plus difficile réellement. Je maîtrise pas aussi très bien aussi. Donc Lingala, c'est facile. Lingala, c'est facile, ouais. Bon, maintenant, on va faire un jeu. J'ai préparé des questions pour toi en Wolof et en Lingala. Donc, je vais te poser des questions en Wolof, tu vas répondre en Wolof. Ensuite, des questions en Lingala, tu vas répondre en Lingala. D'accord Oui, ok. Parenga. Parenga, barbare. Nyutambale. <laughs> Sikoyo, to banda, yo, botama wapi. Manfila judo. Non, tu dois répondre en Lingala. je recommence. Obutama wapi. Obutama la Congo. Dakongo Kinshasa to Dakongo Braza? RDC. Oyaki awa na Senegal na mbula boni? Onayaki awa na Senegal ya 2010. Ozalaki mwana? Na mwa moke. Walegi ban lak moo la gën a neex Wolof wala la Lak bu ma gën a neex mun naa wax ni ne Lingala neex na. ah lu tax. parce que ci laa nekk en fait. ci laa gën a nekk parce que sama gaale. sama famille français lañu làkk ak Lingala donc. wolof bi dama koy takkale école ak sama xarit yi affaire yooyu loolu moo tax mu mun wolof quoi mais man tàmmuma ko bu baax. sa famille bi yëpp ay congolais lañu. waaw sama famille yëpp ay congolais lañu aw ma benn famille sénégalaise ok baax na sikoyo motunayo landa omimonaka mingi congolais to sénégalais. onamonaka mingi congolais plus que sénégalais kutu. apona ah, nini? kasi kutu ne na yibisi yo namutali na congo me na koli nanga awa fami nanga nyonso tomaa ba congolais baninga na yo baza plus to baza plus sénégalais baninga na ngai ba plus congolais 100% kutu 100% ah, okay. léegi question suivante ban togg moo la gën a neex pondu wala ceebu jën ban togg moo ma gën a neex léegi du ma neex nag pondu pondu moo dàq ceebu jën pondu moo dàq ceebu jën fu ay loolu du ma sa ñàkk léegi léegi léegi léegi léegi ngeen ñëw ni daje ma toogal leen loolu waaw mën nga togg pondu waaw mun naa togg pondu kay tàqale tuuti rek. da ngay tàqale tuuti rek mais mënoo toog ceebu jën. ceebu jën non ceebu jën franchement neex na moom dëgg fa yàlla ceebu jën neex na mais franchement pondu moo dàq ceebu jën. Ah, pondu amul moroom amul morom. xam nga bu baax la may wax. waaw xam na de pondu franchement dafa neex pondu dafa neex waaw. pondu moo neex na moom trop. dëgg la kay dëgg la. Sikoyo. question euh, ndule. moyen bi ñu ñëw de nga kama kasi. fali ipupa. to Wally Seck ekutute aigle aigle oza warrior 100% fali pupa ka nga alinga mingi fali pupa mais est ce que oyokaka ndulu ya sénégal ndulu ya sénégal awa ah we nayokaka comme quel genre comme euh, par exemple mama na biso viviane nalingaka ye makasi na bon baartiste mosusu bayoki kobotama ta toyokaka bango mingi te mais mutu nayekaka mingi eza viviane na yusundu ndulu ya congo eleki ndulu ya sénégal Hey, eh, voilà la question de poser, Yaya. La question est simple. Ah, eh, hey, voilà la question que vous poser. Franchement, nous les à Congo et les qui Les qui m'acassent. Les qui m'acassent. Et ça, l'ambiance. Yo, yebi Koyemba. Naïb Koyemba. Yebi Koyemba de Kobina. Naïb Kobina, mais Koyemba, non. C'est des bricas. Légué, euh, fan ga bëgg nek ëlëg Sénégal wala Congo? Fa la bëgg nek ëlëg. Bon, mon nañu wax fi senegal Sénégal laa bëgg a nekk parce que Sénégal franchement Sénégal laa bëgg a gën a nekk ko Congo en fait dëgg la moom congolais laa mais du leen fen mais Sénégal laa gën a bëgg. lu tax. parce que fii moom posé na calme na amul benn problème kenn du la sonal. fii mu gën a yomb Congo quoi. waaw ci yan aspect par exemple. si yan aspect mun nañu wax si euh, wàllum comme ay kër affaire yooyu noonu appartement yi maanaam fii lépp moins cher quoi dafa tranquille en fait. Ah, mais fee gars yi dañoo xaw a yëngu quoi kenn toogul. fii moom mën nga toog nekk ak si jàmm ak nit te kenn du la lijjanti mais fee boo fa dëggee gars yi dañ lay sonal rek mais fii moo gën a neex xam nga fu may waxee. waaw waaw voilà comme yow nga bàyyi sa dëkk ñëw fii nii xam nga fii lu mu neexee dëgg fa yàlla fii moom neex na. waaw baax na daal baax na. <laughs> Sikoyo motuna ya sika mwasina yo akozala congolaise to akozala sénégalaise. mwasi na ngai soki akozala congolaise to sénégalaise. oza na mwasi déjà. te nga na aza na mwasi te mais mutu na ningaka mingi beauté mpenza evanda. naozwa kungu kungu namoni kungu congolaise ouais, makasi congolaise ya braza congolaise ya te ya rdc braza plus euh... ah, kitoko wana Et... yo yebi eloko euh, je suis jamais allé au congo je connais pas trop okomona kare okomona te kuba okopesanga mwasi soki napesaka mwasi la plupart baa bacongolais ya rdc awa ba zappé awa ah problème a waaw problème zate après on va dañu lijjanti loolu quoi après nañu lijjanti loolu loolu du pare lañ ko bàyyi si suuf rek loolu code la système la quoi jërëjëf jërëjëf jërëjëf ok merci t'as un dernier mot à faire passer euh, pour de la vidéo euh, franchement les gars abonnez-vous à Ludo franchement c'est un bon gars et tout bu bàngaatee les gars toujours yaakaar naa mi ngi téye aigle et aussi abonnez-vous à Soldat de Dieu l'artiste Okay. L'artiste. Tu fais pub là. Ouais, je fais la pub. Franchement, l'artiste. Après, on va mettre ça en bas là. Regardez juste là, là, là, Soldat de Dieu. C'est quoi, quoi, le nom Arrivez sur TikTok, vous écrivez Soldat de Dieu, vous allez voir. quel type de musique Urban Gospel, tout ça là. C'est un rappeur en fait. Bon bah, Maton Domingi, euh, Jeff Leberry, Necklens Jam, Botikala Malamu, Tokutana. Zamba Pambolabino, Aigle. Merci.